wa cheikhuna sunu sëriñ aljunaydu te mooy aljunaydu wa bunul qaasimi ak ibnul qaasim radiya yal na doolee gërëm an xuma walis ñoom ñaar ilahul alami buurub mbindeef yi kilaahuma képp ci ñoom ñaar sa alahoo laajoon na ko fi naw mi ci ay nelaw xan xaalihi walis mbiram baadu xiyaaril xawmi lenn ci tànneefi nit ñi fa qaala mu ne lam yabqa desut lanaa ñeel nu mimmaa ci la nga xam ne zahara feeñoon na siwaaru kay xaatin ndare ay ràkka adam naa yooyu saxaloon nan leen fi saxaari ci njël max annama ànd ak naka la nga xam ne xum ñoom fii ci nekkoon nañ ca matalabul jalili mooy sàkku yàlla mi aji màgg fa ay nama kon ana la nga xam ne fii ci nekk na ca siwaahum ku bokkut ak ñoom min fodolin ci ay caaxaan aljunaydu ku siiw la ba nee nañu yoon tasawuf bu ñu ko dee jàngale mu am yoon ci moom la jaare ibnul qasim ku siiw la ci fiqhu malik dafa mel ne su malik jàllee ci ngiram mi moom moo ci sës ñaar ñi nag gannaaw bañ génnee àdduna ku ci nekk waa ju baax dafa gént gis la laaj la waaw ba xam noo def nag foofu ci àllaaxira ku ci nekk tontu ne la ngeen gisoon day nu di ko yëngatu ci xeeti gëstu xam-xam yooyu nga xam ne day nekk gëstu yu sew a sew ñu di ko tënk di ko leeral ñu ne yooyu day seet nañu seet waaye lañ ca foogoon ci njariñ amu ca la am njariñ dëgg-dëgg daal mooy lan daan def bu guddee nu yeewu jóg julli ay ràkka ba tey nee nañu Abu Xanifa gannaaw ba mu génnee àdduna dañoo gént gis ko ci ay nelaw ne ko waaw lu la yàlla def mu ne baal na ma ñu ne ko xanaa ci xam-xam bu bari bi la mu ne ah déedéet xam-xam moom daa bari ay sart yu baree bari yoo xam ne bu ci amut niiwaana boroom xam-xam ba mucc daanaka daal la ngeen xamoon lépp ma daa ko génne ci xam-xam yu sew a sew yu jana jan bi mu agsee fii daa mel ne ëppand rekk la bu ñu sànni mu tasaaroo ay ràkk yu ma daa julli daal bu njëlee moom rekk moom laa gis mu ëpp njariñ mu ne nag ñoom ñaar ñii ak ñeneen ñi baax ñi mel ne ñoom nga xam ne wuti yàlla dong lañ xamoon ci ñoom bañ fi nekkee su fekkee ñoo mujj wax loolu waaw keneen moom nu muy def keneen koo xam ne moom daanaka daa sëggan ci ay caaxaan rek moom nu muy def ak lu muy wax lu néew a néew la ñu gént gis boroom xam-xam bu génn àdduna laaj ko mu ne yàlla jégal na ma ñu ne ko ci lu mu la jégale mu ne xam-xam loolu daal lu néew a néew la ndax xam-xam ci boppam day bari ay sart yu tax kooka jariñu ca bari itam yu ko mën a gàllankoor ba du ca jariñu fa in ajasta ndeem lottu nga xan qiyaamin walis taxaw wa siyaamin ak koor fi leeli ci guddi wan nahaari ak bëccëg ma fi'lil xaraami ànd ak def aji araam walam tatub te tuuboo bi tarki ca bàyyi ga wan nadaamati ak réccu ga fa anta kon yow mahrumun ku ñu xañ nga la dal xiyaamati fa bis penc su fekkee ne doo di woor bëccëg doo di julli guddi boole ca nag sëgg ci def lu araam kon day na nga fexe ba gaaw rëccu tuub dellu ci lu baax te farlu ca boo ko deful rekk boo taxawee bis penc doo am dara ci aw yiw te yaa xañ sa bopp wa man yutil ku yàggal xunaa fii xiyaamal layli taxaw guddi yaxun kon wayaf alayhi ci moom toolu yawmil xawli yàggaayu bisub tiit ma bu fekkee ne da nga di julli ci guddi julli gu yàgg yàgg yow de bu ëllëgee boo dekkee ba taxaw bis penc da nga bokk ci ñi nga xam ne bis ba day gàtt ci ñoom lool duñu yëg yàggaay ba mbaa dara ca tiiswaag tiit ma ndax addis ba nee na bis penc li mu yàgg-yàgg am na ñoo xam ne day toll na ci ñoom rek diir bu ñuy jullee julli farata ku ku gëm yàlla dëgg-dëgg noonu lay gàtte ci moom in tux yi ndem na nga dundal laylatan guddi bi dikkri rabbika ci tudd sa boroom tus tusbix kon nga xëy ka yow mi wala dat ka niki bis bu mu la juree ummu ka sa ndey guddi goo dundal ci tudd yàlla moo xam da nga doon julli moo xam da nga doon jàng alquran mbaa ngay sikkar bu bët seetee da ngay mel ne bala sa yaay juree desetoo dara dara ci bàkkaar ama lazi ndaal la nga xam ne mu yassirun aji yombal la laxoo ñeel julli guddi sababan mbir mu muy sabab fa xillatul akli moo di néewug lekk wa xillatu taxa bi ak néewug coono ci bëccëg bi waxdamu dunoo bi ak ñàkk ay bàkkaar bi naxaari ci bëccëg wa katratil xaaji ak ñàkk bari ay soxla li xayril baar yi jëm ci kudul aji bind ji muy yàlla day wax yi nga xam ne moo la yombalal nga julli guddi mu ne bokk na ca ngay néewal sag lekk lekk moom bu baree faaw rek naan bari nelaw bari te kon doo mën a julli guddi ngay néewal sab coono itam ci bëccëg bu fekkee da ngay ab liggéeykat sonn ci bëccëg bi faaw rek bu guddee nga nelaw bu dee ko mënta ñàkk liggéey noonu nag liggéey bi ak jaamu yàlla la ci kaw nag bu rafet ca yéene fas yéene am lu lew ba delloo ko ci yàlla ku mel noonu buy liggéey ci bëccëg ba ba sonn itam bu guddee rek say boobu nelaw noppalu waaye nag ku amut liggéey bu muy liggéey ci bëccëg bi bu koy tax a sonn moom na jéem a julli ca guddi ga bokk na ci li tax itam nga mën a julli guddi nga fexe ba di néewal def lu yàlla aaye maanaam fexe ba say bàkkaar néew fexe it ba bañ a bari ay soxla yi àdduna mu daal lay wax nag bàkkaar yu bari yi ni mu lay xañe taxaw guddi ak bari soxla yi àdduna yi ni mu lay xañe ak teewlu boo taxawoon tam di jéem a julli id ngir addunoo bu bàkkaar ya tóorisu danañu joxe ma danañu sabab alxasaawata wawu xol kama mada naka mu wéye woon watoo jibu dañuy waral ashaqaawata texee di suma taxoolu topp danañu diggale bayna ko digganteem wa bayna asbaabi rahmatin ak diggante sababi yërmande wuqi naa yal na fegaleef nu xay nan alkande bàkkaar yi bu baree day tax xol bi wow du bëgg a jëm ci lu baax su ko defee bàkkaar yi dox digganteem ak sababi yërmande yàlla yi rawante na julli guddi googule waqaala wax na cheikhuna sunu sëriñ alxakiimu kay aji xam xikam ak tawri te mooy sufiyaan ak tawri jasaahu yàlla na ko fay mawlaana sunu boroom jasa al xayri payuk yiw ne xurimtu xañee foon na ma an aqooma ma taxaw fi leyaal yi ci guddi ya xamsata ashhurin juróomi weer xalat tawaal yi ci ak toftaloo min ajli zambin ngir bakkaar waahid bu di benn fa su ilata laajeef ko an walis bakkaar boobu fa qaala te mu wax ne xad ra'aytu gisoon naa rajulan waay min arrijaali ci góor ña wax wa te mbir moom moom fil bukaay nekk na ci ay jooy fa xultu ma wax fii nafsee ci sama xel ne za kii day muraalin aji ngistal la haza lii boo ko gisee mooy li anna charra ngir naka ay wa yaddoxoo day woote abadan faaw li charri jëm ciw ay wal xayru yiw wa itam day woote li xayrin jëm ci aw yiw in badaa ndem feeñ na xaliilu kullin aji néewi képp min xumaa ci ñoom ñaar yaddoxoo day woote ilaa kathirihi jëm ci aji bareem ja kon falaata kun bul nekk mu xallilan di aji néewal mooy di aji xeeb kenn ci ñoom ñaar li mu waxoon ne bakkaar day tax xol bi wow dox diggante jaam bi ak sababi yërmande yàlla da ko misaal ku ñuy wax sufiyaan ak tawri muy ku ràññiku ku siiwa siiw nee na dalaa julli guddi waaye am na juróomi weer yoo xam daa tegaloo mënta fexe rek ba julli guddi ndax benn bakkaar dong boo xam ne moom la defoon ñu ne ko ban la mu ne damaa gisoon benn waay muy jooy ma wax ci saa xel ne kii day day ngistal rek waxu ko ci làmmiñam ci xelam rek la ko wax waaye ku toll ne moom moom dañ koy jàppi bakkaar lu mu tuuti tuuti mu ne li waral loolu mooy lu bon lu ne foo ko fekk day ñor di jaam bi jëme ko ci lu bon kon mën nga ne lu bon lu ne day ñor di yeneen yu bon a bon yu bare bare aw yi it mooy lu baax it noonu la day ñor di jaam bi jëme ko ci aw yiw mën nga ne aw mën nga ne aw yi it day ñor di yeneen yiw yu bare bare mu daldi daaneele ne aw ay maanaam lu baaxut ak yiw te mooy lu baax bul ci xeeb dara ndax loo ca gis mu tuutee tuuti ba nga xeeb ko it nan la yóbbu ca la bare bari la bare bari yóbbu la ci la gën a bari lu baaxut soo ko xeebee ba tax nga laal ko dala ñoddi yóbbu la ci ay wu ko ëpp ay woowee yóbbu la ci yeneen ba ay ya gën a bari aw yu itam bu ci xew wenn ba ne duma ko def aka yi def ko rek ndax lu mu néew néew boo ko defee te yàlla tax da lay ñoddi jëme la ci lu baax lu baax loolee jëme la ci leneen lu baax bu mujj rek yiw yu tuuti woowee ñoddil la ay yiw yu bare bare bare waqiila waxees na ne laa yafootu du raw xabdar rabbi jaamu buur ba jamaaxatul mbooloo illaa bi fi'li zambi ndara ci def bakkaar mu ne nee nañu ab jaam saa yoo gisee jullit mbooloo raw ko rek ñàkkul bakkaar ba mu def ba yàlla nattoo ko xañ ko jullit mbooloo ga lu mel noonu waxoon nañ ko ci gannaaw wa inna lixtilaama naka gént fi layaali ci guddi ya xuqubatullaahi mbugaluk yàlla xalal rijaali ci góor ña xultu ma wax ne si waxtilaami ahlil badri ndare géntug ñooñ badar anhum yàlla nekk ci ñoom ridar rahmaani ngërëmal aji yërëme ji kula dahrin ci bépp jamono fa innahoo naka moom day bushaaratu rahmaani mbégum aji yërëme ji la wa rafxu axwaalin ak yëkkati ay mbir maxal ahsaani ànd ak ay njàqare nelaw bay gént moom dafa amuk teqale bu dee gént yu baax waaju baax la ko yàllay wan bu dee nitu kese moom mën naa gént génti caaxaan yooyu rekk waaye nag waaye yàlla moom bu tëddee ba gént amee janaaba sangu farata war ko na ko wóor ne ñekkul bakkaar bu mu def ba yàlla mbugale ko gént googee ba amee janaaba lu may nag mu bokk ci waa ahlu badar ña fekkoon badar moom na ko addis ba waxe suñ boroom da leen a ëttu ne leen def leen lu ngeen soob gannaaw tey duma leen jàppe dara kon nag ku bokk ci waa ahlu badar moom bu géntoon ba amee janaaba itam dollit mbégte la dolli ay daraja rek la ak ak gën koo soril xeeti njàqare yi fa kullu zambin bét bakkaar yam na u dana tere aabidan aji jaamu min qiyaami leyli ci taxaw guddi fa sadiq na nga dëggal xawli yi sama wax bakkaar lu mu néew néew rek mën naa tax kadaa jaamu yàlla du mën a jóg ci guddi gi jaamu yàlla ndax bàkkaar baa koy yeew ba du mën a jóg laakin namal axasu waaye ka gën a jagoo bi tasiiri ci ak jeexital fi xal bi muminin ci xolub aji gëm bi xawlil xiiri ci waxi tànneef ya ak lu xaraamin mooy lekk lu araam xakk sa xillin te mooy safaanub lekk lu lew fa yuqaalu def na wax ne yu siru dana jeexiital mbaa dana ëfal alxalaalu aji lew fi tasfiyatil qalbi ci sellal xol ba bi mu nee bàkkaar bu ne mën naa tax jaamukatu yàlla bi du mën a julli guddi mu ne la ca raw nag mooy lekk lu araam lekk lu araam moom li mën a yàq ab xol ba tey koo jaamu yàlla tey koo julli guddi moom dara melu na mooy safaanub lekk lu lew lu lew moom boo ko dee jëfandikoo faw rek ngay jëf jëf ju sell ju baax lekk lu lew moom day sellal sa xol jëmale sa xol ci lu baax la yàlla gërëm waxii la waxeef na ne kam lu bare bari min ak latin ci ak lekk xadd mën a at tere na minal xiyaami ci taxaw laylatan ci guddi fa xasara te mu pertuloo boroom mu ne nee nañu baraana lekk gu waay lekk te fekk muy lekk gu aay mu daal di koy xañ julli guddi daal koy xañ jiwu rëy rëy waxi la waxees ne kam lu bare bari min nadratin ci ab xool xadd mën a xat tere na minal xiraati jàng ga li suurat ñi aw saar ba dat woo feeñ na ba tey nee na lu bare bari jaam bi xool lu wërta xool rek yàlla xañ ko ca jàng alxuraan xam ne wenn saa sax du ko mën a tiimati di ko jàng di ko xool ci bëtam ndax lam xool ci bët yee lu araam nga xam ne kon bakkaar moom yépp mata moyu ndax day xañ jaam bi ak topp ak lu baax di wawal xol ba ba du bëgg lu baax du ci jëm tumal bawaaxitu topp way yene ya lu la yen ci dara mooy la la ca yóbbu alxiyaami ca taxaw guddi min xaa bokk na ci ñoom allësi li nga xam ne azkuru danaa ko tudd fi nizaam yi ca way wa yi nga xam ne ñoo lay yen ci julli guddi nee na ñoom laay bëgg a wax nii maanaam yi lay sawarloo ci julli guddi nee na moom lay bëgg a wax nii xirfaanu fadlihi xam ngëneelam la xalaa samaahi aayin ci dégg ay aaya wa axbaarin ak i xabar lil intifaaxi ngir jariñu ga xataa yu qawiya ba mu dëgëral rajaahoo yaakaaram nga ba ci jëkk mooy nga jàng ci alquran laay yi nga xam ne dañuy wax ngëneelal julli guddi ak addis yi nga xam dañuy wax ngëneeli julli guddi yooyu boo ko jàngee day tax nga xemmem julli guddi sa yaakaar ci yàlla yaakaar nga ne lam ci boo defee julli guddi googu daal di gën a dolli ko kazaniki nii salaamatul qalbi mucc xol ba minal xiq bi ci ak noonoo wala coxor xusan na nga ko jàpp wa kulli bidaxatin ak bépp bidaa ba tey xol bu set wecc ci coxor mbaa kañaan mbaa xeetu bidaa dana dimbali boroom ci lépp lu baax rawante na julli guddi ndax bu xol bi setul moom da koy daal di xañ ba tey yu baax yu bare bari rawante na julli guddi wala xuri jute muy génne fa loola xumoomi zi duniya caaxaani yitte yi jële àdduna li yuru saqa ngir bu dee fi ko wërsëgale alxab wala nangu ga li ànd dal xumoomi ngir naka boroom yitte borom yitte adduna yi in xaama dem taxaw ne di jullit fala yakkoonu du nekk fikruhu xalaatam nga walaw talaa ak doon te jàngoon na jëxëran ci ak bëral fii xëyrima ci lu dul la nga xam ne ahammahoo yitteel na ko laa fi salaati dir mu nekk ci julli ga fa xallil na nga néewal alxumooma yitte ya wax zarate nga wattandiku alfawaata faat ga yene boo bëggee itam boo dee julli guddi julli guddi ga baax te ràññi ko dangay fexe ba ñëwal sa soxlay àdduna ndax boo xasee bari yitte àdduna boo jógoon ba taxaw ba jullit sa xel day nekk ci yitte yu bari ya waaye du nekk ci julli ga ngay julli kon nag del jéem a néewal sa yitte àdduna ndax nga mën a julli julli gu ànd ko teewlu wa kullu man képp koo xam ne xadd taxas dara gàntal na alayhi ci moom xiyaamu jaw fi layli taxaw biir guddi ga min ajul kara ngir nga meen fal yatta nafal nay naafila baada fardil maghribi ci gannaaw faratay timis wa baxada an salla ak gannaaw ba mu jullee alxicha gee yu fab kon def na ko yool tuma yaqoomu topp dana jóg qabla subhin ci njëkk suba bi jitihaadin ànd ak farlu laa yudrikanhu bu mu ko jot asubhu suba wax wa te fekk na moom fir ruqaadi nekk na ci ay nelaw koo xam ne mënuta julli guddi waaye la ko waral nag mooy daa bari ay nelaw kon day fexe ba gannaaw bu julee timis ba sëlmal mu baril ay naafilaam gannaaw bu julee gee itam balaa tëdd baril ay naafilaam ba noppi nag fexe ba teel a yeewu nga xam ne bala ñëw salaatu rek dana fekk mu yeewu ab diir tumma yaquum topp dana jóg baadahoo ci gannaawam bi tarafay nahaarihi ci yaari cati bëccëgam wala ci yaari wàlli bëccëgam fajtahi danna na nga farlu yaa aw xay yow samas mbokk ndegam daal bari na ay nelaw ba du mën a julli guddi bu defee nee ñu ko wax ba noppi na ci na ci boole suba ngoon muy farlu ci lépp lu baax gannaaw julli suba na farlu ci tudd yàlla ak ñaan ak jégglu bu amee wirde di ko def bu naa fi la daganee nag mooy jant bi fenk na ba yëkkati ku lu mat ñetti meetar kon su ko neexee baril ay naafila yi julli gannaaw takkusaan it muy ngoon gi bu xasee sëlmal takkusaan dañuy aaye naafila waaye mën naa baril nag wirde yi ak ñaan yeeg yu demee noonu wa in yekkun dem dana nekk daalika loolee daa taxadurin di boroomu gàntal xale yi ci moom fillee li ci guddi li ajali darari ngir lor yàqum kon mu jóg bi qadri arbaxi rakkaxaati ci kem ñeenti rakka fillee li ci guddi aw miqdaari xal bishaati wala kem ratt ab gàtt mooy kama jaa naka la dikkee bi ci loolu xadiisul mursali adiisub kañu yónni alayhi yàlla na doolee nekk ci moom aska salawaatil mursili gën jaa selli terali aji yónnee ja su fekkee ne nag daa amee ngànt loo xam ne mënta julli guddi julli gu yàgg ni ki wéradi kon day jiyam su fekkee mën na sax ñeenti ràkka bu mu ko xeeb wala sax bu mënee taxaw julli lu tolloog boo doon rat ab gàtt na jël bay gàtte lu toll noonu sax bu ko mënee taxaw julli bu mu ko xeeb hadis ba moo wax ne kii taxaw di julli bu taxawaay ba gàttoon ba tolloog diir ba ñu rate ab gàtt it teewul rek bu mu ko xeeb moo tax mu ne ni ko hadis ba indee mu ñaanal nag ki wax hadis bi mu yonant bi yàlla dolli ko ay teraangaam yëgg na sell wa in taxadara ndem gàntal na fa rakkaxataani kon ñaari rakka faqat dong bila zayd ci lulul ak dolli wala nuqsaan du caageenu wàññi su fekkee amee na ngànt ni ki ak wéradi goo xam ne taxaw julli lu tolloog ñeenti rakk sax mbaa lu tolloog diir ba ñu ratti ab gàtt sax mënu ko na jéem boo xam dana mën a julli ñaari rakkaam déet ñaari rakka dong bu mu ko xeeb wa in taxadara ndem gàntal na xale yi ci moom xaxada mu jekki mustaqbilal xiblati mbir mu ngi aji jublu xibla yaddoxoo di ñaan assamada yàlla kañ jublu ci aajo ay lu mu ci namm saaxatan wenn waxtu muftakiran mbir mu ngi aji xalaat wa yadkuru tamit tudd yàlla du nabdu tijaahin ci lu dul tëdd misla maytin kem ab néew yuq baru ba def ko suul ci bàmmeel su ko tawat ji jàppee ba nga xamee ne taxaw julli ñaar rakk sax mënu ko kon su fekkee mën naa jóg toog na jóg toog bu fekkee mën naa julli gàttaru baax na bu fekkee toog rek la man mu toog nag jublu xibla di ñaan yàlla boroomam di xalaat ci mbirum boroomam waaye bu mu tëdd rek mel ni ab néew na jéem rek toog di tudd yàlla bu mu ko xeeb fa kullu man képp koo xam ne iddaha woote na xubba ilaahihi sopp buram ba wayar xudu tamit nelaw allayaali guddiya maxan boole seen anhu walis ko faka zibun kon aji fen la kama salaamu nit ki nga xamee ne yàlla mi aji mucc ci ayub aw xaa wax yu woon na ko li daawooda jëm ci daawooda alayhim yàlla nekk ci ñoom yonante yépp assalaatu dolli teral wasalaamu ak dolli woolu ku ne man day dama sopp yàlla ba noppi yàlla jëralu ko yàq ay nelawam xam ne bu guddee day nelaw rek waaye du jóg di yàlle boroomam ci julleeg lu ko nuru kon kooku lam wax amut la muy woote ci ak sopp yàlla du dëgg ndax bu doon dëgg yàlla jaral ko yàq ay nelawam te yàlla waxoon na ko daawut ne ko ku wax ne sopp nga ma ma jaral la nga yàq say nelaw waaye ku ma sopp te jaralu ma ko yàq ay nelawam kon la mu wax ca sopp ga daa wérut wa minhu bokk na ci xëtt teggiin fi xikaayatil axbaari ci nettalik fóoree mujarradul inkaari lu ñu rafleeli ak weddi waatidaarin akuk dogal ngant bokk na ci xëtt teggiin jekki-jekki daal di weddi dara ci shariha te fekkul nga peeg mboolem xam-xami shariha ndax yax yi ñëw ci alxuraan ak addis ñu leen di sukkandikoo dañu faral di yenu dañu faral di ëmb ay anam yu baree bare nee nañu shariha yàllaa ko yaatal manees na ne am na ñetti téeméeri yoon ak fukk yoo xam ne yoon wu ca jaam bi jaar rek yàlla dugal ko ajjana su fekkee nag yàlla xamal na la yoon yooyu yépp nag nga gis loo xam ne juyoo na ak ñoom nag kon na nga weddi li ñu wax mujaradul inkaar maanaam jékki-jékki rek weddi dara di nga dara ci sharia loo xam ne àndoo caag xam gu wér ak yéene ju sell loolu lañu wax ne xëtt teggin la daa tudd al inkaar al mujarradu min an niya ixtirazan xam man qasada bi inkaarihi nusrata shara ñoom dañuy wax ne iyaaka wal mubaadarata ila al inkaar illa ida axatta bi jamihi turuqi shariha wa sharihatu jaat xala xashrin wa thalathimiati tariqa laysat minha tariqatun yalqa alxabdu fiha rabbahu illa adxalahu aljanna fa in kunta aarifan bi jamihi hadihi turuq falaka al inkaar wa illa fa taslimu awlaa lak dogal ngànt gee moom mën naa nekk xëtt teggiin ndax mën naa def lu wërta def mbaa mu bàyyi lu waroon a def ba noppi nag rëy ak fonk boppam bañ ku ko wax dara bañ ku ko wàññi wàññi dara jaam tax mu daldi lay ne nangam kat nangama tee ma def ko mbaa nangam lee ma wartoon def kat nangama tax ma def ko fekk na wàllu bakkanam dong la waaye ca dëgg-dëgg loolee mu bàyyi te waru koon a bàyyi mënoon na koo def loolee mu def te waru koon a def mënoon na koo bàyyi waaye léegi dana joxe ngànt nag wane ne nangam rek a tax de defuma lee mbaa ma def lee loolu xëtt teggin la nde sax bu fekkee daa am ngànt dëgg-dëgg moom wax ngànt la dara nekku ca rawante ne bu ko séqee koo xam ne wax ko ngànt la sax mën naa am tu sax mu jéggal ko yooyu jamono wax ga ngànt du xëtt sharia ndax am na ñoo xam ne bu dee ñooma boo waxee sa ngànt ba mu leerit du tax sax ñu nangu ngànt la moo tax mu tudd mujarradul ihtidaar lima fihi min xazi nafsi wal kibri wa taskiyati nafsi li baraatiha min annaqs bi xilaafi lxudri gayri lmujarrad fa innahu ma'murun bi id tarkuhu mujibun lil xadaawa li anna minhum man yactadiru ilayhi axuuhu wala yaqbalu xudra wa axraa in lam yactadir ilayhi wa minhu bokk na ci xëtt teggiin ziinatun waajtaay maxat taqarru bi ànd ak jegeñlu maanaam ànd ak bëgg a jege yu umara i ñeel buuri àdduna yi liqtinaasil manse bi ngir rëbbu daraja ab taalibe wala nitu yàlla kenn sañu cee jekk-jekk rek waaj waajtaayu àdduna ngir rek àddunay kese bala cee kenn waaj waajtaayu àdduna da cay seet la sharia rëdd niki